gaz et du pétrole. Avec l'enjeu du pétrole, je pense que ça, c'est une alerte. Ça veut dire comment on va gérer, comment, quel instrument faut-il utiliser si l'OFNAC n'est plus efficace, si l'OFNAC n'est plus efficiente. Et nous qui vous connaissons, ma soeur Hélène l'a dit, nous vous connaissons, pas aller vous êtes notre jeune frère. Nous vous avons vu à l'œuvre. Nous vous, nous vous connaissons, en tout cas moi personnellement. Je vous connais, je connais mon mari. La seule fille, elle, il l'a dit à Boubacar Kamara, mon frère, je salue les chefs de parti qui sont là. Bon, à une constance, mais il constance a que dignité de il ñu a lay encourager ci yoon bi nga tu te xam ne li ngay def nii defaloo sa pour sa gloire personnelle pour pour pour Sénégal kooku moy nit ki di sunu rak ñu lay ñaanal di la encourage di la wax ne li ngay def ni yalla mo la koy fay nit lu la kaa fay ñaareel bi moy œuvre li nga bind da nga bind scandale au cœur amna ko ku livre bu tudd le Sénégal au cœur mais livre bi dañu war a changer titre tuddé ko scandale au cœur yow li nga tudd li nga bind nii sous-titre bi nga ne le dossier du coup. dama lay ñaan nga def yenen dossier bu yem ci dossier coup dossier par dossier mais ces gens qui détruisent notre pays qui sont en train de le détruire nous en sommes spectateurs on se révolte de temps en temps j'y reviendrai mais que leurs enfants soient informés de ce qu'ils ont fait contre notre pays mais que ce soit au moins un petit moyen de peser sur le renouvellement, sur le maintien de tels comportements. C'est important qu'il écrive cela pour cet objectif, mais il est également important que d'autres ouvrages permettent de démontrer, parce qu'il le fait remarquablement bien, qu'aujourd'hui, nous avons un système qui est monté pour organiser la rapine. C'est ça le problème. Tu l'as, tu l'as évoqué, euh, on a mis en place un système pour organiser de la corruption. Et on a organisé ce système, il est basé sur l'affaiblissement des corps de contrôle. Le xeex bi amee yoon moo tax bu ñu ci condition yooyu ku mel ni pas Alé man bi koy xam ça fait plus de 16 ans te démarche bi ko c'est mooy démarche d'investigation. investigation boobu maa ngi doog a génn am lobby yu bare yoo xam ne ci cooki bu métti laa nekkoon ak ñoom bi mu tàngee ba tàng dafa ñëw ne ma dama bëgg a xam li xew bi mu xamee li xew ni mu ci taxawee mooy taxawaayu journaliste dëgg xam li xew ba comprendre foofu laa ko jàppee ba tey et ba léegi loolu ci constance boobu nga am dañu lay ñaan yàlla na sax gisoon nañ fi nag journaliste yu bare yu fi bindoon ay livre di fi combattre waaye su amee changement de régime épreuve la boo xam ne bii dangay bëgg basculer parce que do am constance bo amul constance dangay ngay mais ñàkk constance bi ñàkk dignité motax ñu ngi lay encourager ci yoon bi nga top té xamné li ngay def ni défaloko sa bop defaloo pour sa gloire personnelle dang ko def pour Sénégal koku moy nit ki bi sunu rak ñu lay ñaanal di la encourager di la wax né li ngay def ni yalla mo la koy fay nit mënu la kaa fay ñaareel bi moy œuvre li nga bind da nga bind scandale au cœur am na ku livre bu tudd le Sénégal au cœur mais livre bi dañu war a changer titre bi tuddee ko scandale au cœur yow li nga tudd li nga bind bi sous-titre bi nga le dossier du coup. dama lay ñaan nga def yeneen dossier bul yem ci dossier coup. dossier par dossier coow li dina bare werante bi mais yi am rapport comme ni nga wax rek démarche bi yemal ci rapport yi xam li ci bind yeneen information cab lagal ñu nekk ci suuf yëpp jaru yooyu moom meun nañ ko jaar ci wax sa xalaat ak yooyu mais la réalité historique des faits naka la ñuy piller augmentation xam nga kilo kilo lu mu tuddati haricot bu dee ba quatre augmentation prix bi nga gis bi mais ci lii ci ci système étatique bi la jëkke dafa am système yi ñuy def yo xam dañuy surfacturer ñepp ko xam xam nu ñuy fonctionner ay marché fictif yépp dafa am réalité yooyu ngay génné série par série kooku maa ngi la koy conseiller ci œuvre nga xam ne nag œuvre bii ngay def nii le beaucoup journaliste comprend que dafa am moment Sénégal la neutralité professionnelle devient une neutralité. Chaque fois que tu vas sortir la nouvelle série, passer le dossier du cours pour rajouter un autre dossier, parce qu'il y a énormément de dossiers. Trois, et pour terminer, le Sénégal compte et comptera toujours des hommes remarquables dont j'entrevois dans cette salle leur image.